dikkati naa borom scandale covid 19 bi jël leen siis ngeen toog tribune yéen kaay na ñu xamal leen ni fàtteew ñu leen xanaa kay réew mee bari jafe-jafe daal di la ñu wëñ coppet ci bii teg ci bee bee ne ko rajax jaxasoo lool ñuy wax ci lii pareegu ñu leneen day ñëw waaye xam leen ni fàtteew ñu leen scandale la boo xam ne mbaadu dafa daal di tàbbi ci fàtte yéen kaay bi média bi ne ko déet junni ci milliards ñu daal di koy tàbbal géej ne furaas lekk ko def ci seenu gafa askan bi di tuñ tuñal jaay nañ fi sax masque téeméer oxygène manqué fi ba maar day hôpital yi ngeen di dañuy fàtte bi le scandale turbine nan kon dee duñ ko fàtte détournement boo xam ne daanaka Sénégal bokk na ci loo xam ne ku xar dënn yi daan ko ci fekk ñu ne déeta waaye mu daal di jéggi frontière mbir moo xam ne man la dee su ko fàttee nii nii nii daar daar yéen a ngi sunub xel te lekk ngeen sunu xel riibaa te ngeen xam ne nag dëgg-dëgg Sénégal dafa bëri jafe-jafe yoo xam ne ci la ñuy nekk di lijjanti nii nag buñ ca noppee cay buñ ca noppee daa ngeen xam ne lépp dëgg la turbine naan maan waaye Sénégal jaxasoo na coow yi bari na suñu ndaw yi jaaxle nañ ba jamono ji gaal gi la ñuy jël di daal di tëmbi géej yéeni bi dee média bi naan man lan moo tax na nguur gi waxul ci lii yoon wi nga xam ne xale yi ña koy jël di dem di faatu ci anam woo xam ne maa day taali métti na gannaaw discours yoo xam ne ñi ngi ciy wax di ñu fatt dara ndaw yi moom ñu leen di jël saa bu ñu leen soxla jëfandikoo leen rawatina waaye élection jub see waaye buñ ca noppee daal di leen di beddi acam sànni xale yi nag dem ba amatunu yaakaar seenub réew ñuy daal di gàddaay di wuti ëllëg woo xam ne moo daal di gën a ñoŋ 24 heures yéene kaay jox kàddu Amadou Fadilou Diallo ba muy xam le ni ndaw yi nga xam ne ñi ngi leen di bàyyi ñuy dem di faatu ci géej gi xanaa kon tayeef la goo xam ne dañ koy daal di def ngir daal di wàññi ñàkkub xëyum ndaw ñi yoor yoor naan maan Khady Gadiaga day ma ngay xam le ni beddi gi ñu beddi ndaw yi buñ ci jógulee lii du dakk docteur Mamadou Mansour juuf ne waay waay maa ngay sargal Papito Kara ndaw bu bëggoon réewam ndaw bu bëggoon ab coppite it ci réewam ndaw bu bëggoon daw ngir ëllëg gu ñoo gisul boppam ci réewam ndaw moomee moo di Papito Kara daal di ci géej gi naan man bugaan gay dani nee na dara ni réew mi di doxee day buñ ko soppiwul dara xale yi daañu dem ci géej gi daañu faatu ci géej gi te furaas du mujjee fenn le mandat yéene kaay naan koon bugaan gay ma nga naan ndaw talal naa leen loxo ma ne la bu ngeen bëggee Sénégal goo xam ne di ngeen ci amaat yaakaar jël leen sama loxo bii ma leen talal ndax yaakaar la ci yéen ndax nag yéen a ngi ci yoonu Nicaragua geeg Espagne gi nguurug senegal gannaaw jàpp ña nga xam ne ñoo leen di yóbbu deful dara ngir lii dakk moo ne day saa bu nu yeewoo dégg ci ay faatu yoo xam ni mar toll ci fukki junni ci ndaw di doomi Sénégal ñi ngi ci diggante Nicaragua geeg yoonu Espagne gi dem gi nga xam ne ñi ngi koy dem jaar ci géej gi ci suuf si senegal nekk ci ñaareelu réew moo xam ne moo ëpp ay màngaankat yoo xam ne teer nañ ca waaxu Espagne googee waaye it Sénégal nekk ñaareelu réew boo xam ne ëpp nañu ci faatu géy naan sama wax ji bu leen ko jàppee ay critique jógee ci opposant déedéet sama wax ji ay dëgg la yoo xam ne maa ngi ko tàbbal sama ndaw réew ndax at wu yàlla sàkk ñetti ñoo xam ne am nañ li toog di xëy di naan ataaya suba bu guddi ndax amatuñu yaakaar senegal yi nekkoon ci pàcc pàcc gi nekk ci biir réew mi coono tax ñu daal di gàddaay daal di wut si fii ci ndakaaru ndakaaru goo xam ne daanaka yaakaar fi la gën a napp kat yi nag daal di am ak gàllankoor mooy accord de pêche yi nga xam ne def nañ ko napp moom daanaka ci réewum sénégal léegi dañ leen fiy limité xale yi gisatuñu seen bopp si seenub réew ñuy jël gaal gi di gàddaay ñii di egg ñii di faatu opposition bi jël balam di tuy tuyal nguurug sénégal nguur gi ni cell mel ni ku faalewul ak ndawam bari na ci ñoo xam ne jamono jii ñu ngi yootu réew mi lan lan def seeni i programme loo xam ni boo la lëggee ndaw yi mën nañ am yaakaar ci sànni leen seen xob waaye itam am yaakaar des seenug réew la ñuy am Espagne di ko dund Espagne ñu koy dund fii ci réewum Sénégal bugaan naan leen kaay leen man duma politicien moo tax nag diguma leen lu ma leen di naxee ba ma leen di wax tekki jot na lii lépp amul woon ba ma leen di wax gëm sa boppit lii amul woon ba may wër réew mi di def yaakaar ci xol yi lii amul woon ba ma leen di wax ne chômage daan ko tàbbal leen la am France Italie ci réewum Sénégal rax ci dolli ñun dañoo am pétrole ak gaz lépp loo xam ne ma ne la mënees na ko wàññi ci réew Sénégal mën nañ koo wàññi lépp loo xam ne moo war tax Sénégal suqaleeku développement am fi mënees naa ne xanaa kay dañoo xoolul yoon wi xam ne mënees na ci jaar ba mu am bugaan naan leen diggante mbay meeg napp gi waaye tam exploité suñuy ressources lu ne mën naa nekk ngir joyanti réewum Sénégal gay naan leen yéen jox leen ma carte yi rek te ngeen di xam ni beneen Sénégal mën naa nekk l'enquête ko dajee naan maan boobu l'armée bu Sénégal day ma ngay ñuqali le soleil yéene kaay naan fanweeri junni ak juróom ci agent la ñu bëgg def ci arme bi fii ak 2035 laas naan man ca ndaje ma moom président Macky Sall day daal dinay reyal teeñ général Moussa Fall vox populi naan président Macky Sall ma nga naan général Moussa Fall am nga rigueur bëgg nga sa réew te xam nga it li la war ci sa réew général Moussa Fall naan du ñu bàyyi Sénégal moom kaaraange force la fi am réew bi ko dajee naan man président Macky sal day ma ngay xeex terrorisme trafic bu drogue jaayub sinébar piraterie yi am ci géej gi napp gi nga xam ne jaarul yoon cybercriminalité réalité réseaux sociaux yi nga xam ne lu waay neex def deux minutes pour lire l'essentiel mel ni ku naan kon président Macky Sall booleel ci xeex bi lii recensement ANSD yi ñaar fukki milliards ak juróom la ñu ne lañ ci def te ñii ña nga naan recensé nañ ñi ñii naan ñëwuñu suñu kër ñaar fukki milliards ak juróom yi yéene kaay bi naan man fu mu dugg booba Walf Quotidien mi ngi may xamal ne ba tey jii ma ni la ayib dafee mënta jot fiche de parrainage bu Sonko ni ki ko wax ayib daal di génneeg loxol tuñ ñu ca DGE naan leen nag xeex bi nag gëm naa ni dëgg-dëgg ci wàllu politique lay doon waaye tam ci wàllu justice ak lu mu mën a laaj libération yéene kaay naan man avocat Ousmane Sonko yi day fas nañu yéene topp DGE le témoin yéene kaay naan kon Sénat kay lañ ko kalaameel yoor yoor naan kon nee ñu Sénat wuutul DGE ci li mu nekkee rax ci dolli nag cendee la faal abal ñu le témoin yéene kaay naan kon en tout cas daaf ma nga naan keccet ma ca jël na tur Ousmane Sonko daal di riigaat ci fichier bi léegi Ousmane Sonko mi ngi ci fichier ba lay jeex na waxtu te ñaga ñaaw Tening Sène daal dinay mobiliser dajale nag ay militants ak ñi nga xam ne ñoo faral APR ngir ñu jàppale Amadou Ba ngir ndam li ci tournée économique ba ca jégam Tening Sène profito ca naan waa ñaga ñaaw choix bu baax baa ngi nii kujemit ak géej ju daal di dalal Amadou Ba it xamal ko ni unité ak engagement fas nañ ko yéene fii démonstration de force am ca Mbour waxtu woo Parcelles Assainies bëgg sa réew fas yéene sargal président Macky Sall Massamba Dieye ne ci ay réalisation président la ñu daal di sukkandiku ngir daal di koy sargal tribune yéene kaay ba tey daal di jox kàddu Moustapha Diaw bokk ci bureau politique bu parti socialiste ni wax ji wax ji moom moo di lan moo tax parti socialiste nag amuñu candidat Vox Populi naan maan ca coow la ca mbéy maire ba Ndiagne Diop niki noonu it adjoint bi daal dinañ koy woolu daal di koy libéré waat Walf Quotidien naan maan Ngagne Diop kay dem na wax ay dëggam wax Descos Tribune naan maan téye gi nga xam ne ñu ngi koy téye askan wi ci kaso yi téye leen lu yàgg te atte du ca am loolee la ñu daal di bëgg mu daal di dakk ci réewum Sénégal l'observateur naan maan laataa boobu ma jox kàddu ñi nga xam ne mës nañoo faati bakkan